ci nga ñëw mu puusa nga delu te bëre li ci ëpp solo li ci ëpp solo moy songu songu mo ci ëpp solo te mënugo ko barke Serigne Bamba mënul songu tay qualité bëreem bariwul ah lolu mom soxoruma nak mais dama koy wax wax dëgg yalla mom gëw ma ko daal moom waaw ya mu gëna xam mën nañ japp ni yaa ko bëree yaa ko dàq bëree bu ñu ci say kaddu waaw dañoo bokk sax kooku <laughs> man ak bokku ñu ay qualité bëri wala ay xeetu bëri bokkuñu ko nee naa leen nan teg spécial am teg sama spécial nga xool moom loo booy xool lu si ëpp si ay victoire am benn kele bii rek nga gis mais man boo si gis bu nekk du boo ak moromam waaw loolu yàlla moo ko ci qualité boobu sax fa laay taxaw tuuti parce que gis nañ anam bi ngay bëree euh, yàgg la dégg ngay wax ni yow sa bëri lu ci ëpp deux nga koy bëree tan man man ta aussi may faral di wax ni tey bu ñu nekkoon ci football dañ naan Marley attaque placé lay def parce que xeetu cong dafa doy lépp day ànd ak bëree ngay liggéey di liggéey ba chute am nga am li nga bëgg waaw loolu xam nga ku mënul li ngay def doo am fit bi maanaam des fois da ngay gis loo xamante ne nii da lay leer na lii boo songoo da ci am dara mais am na ñoo xamante ne gis nangoo dem ndax ragal mais man damay gëm ne su ma demee li ma bëgg dama koy am ba lu ma si am jël ndax des fois sa mënin dëgg dëgg dëgg dañ la siy daan xam nga mais moom lépp loo xamante ni nii sama bët moom mu ma koy may sama fit du ma ko xañ te bu dee ci qualité bëre kase kase loolu macha allah yàlla defal na moo ko daal wax dëgg yàlla. a hmm. part xeetu cong moom parce que loolu lañ gën a ràññee ci Marley daw jël adversaire bi jëm ko piège à part loolu yan xeetu bëree nga faral di bëri. man damay loo xalaat si bëri moom dama koy bëri lenn daal laa xam ne moom mënu ko si bëri mooy xatar bi wax dëgg yàlla xatar bi moom mënu ma ko la ko bëggoon def yow mii sax léegi léegi doo dem waaw ah, mais xeetu bëri moom boo xalaat moom dama koy bëri moom wax dëgg yàlla xatar bi daal mooy sama problème mënu ko moom wax dëgg yàlla waaw. waaw hmm. ah, mbër combat bi taxaw sa diggante ak Boy Baol euh, nga nekk ci waajtaay yi mais ba léegi jusqu'à présent amagoo leen date tey au niveau des de de la préparation nan ngay waajalee combat boobu. waaw ñu ngi koy waajalee daal mooy ñu ngi si suñuy entraînement yu sore ñu ngi koy waaj ba bu nee suba la sax ñu dem bëri yi parce que xam nga promoteur yi moom mooy toog ba mu neexu rek comme bu ñu joxee avance yàgg jàpp bisam ne la ñuy bëri xam moo taxit waaj bu am solo rek moo ñu war waaw ñi dëkkalit su may su may am di jàmm ñëpp ñu ngi koy waaj combat bi wax na wax dëgg yàlla ñoom ñoo ma gën a bëgg sax ñun ñoo ma ko gën a bëgg foofu man maa ngi góorgóorlu maa ngi rey sama bopp mais ñoom liñ ciy daj ak liñ ciy sonn sax xam nga danga naan liy jaru ko quoi xam nga nit boo nekk ak moom mu am fu mu la teg loo dugg lu nekk rek da ciy xar tànk tubéyam te loolu moom moo tax mais daal ñi ngi ñaan yàlla suturaal ñu si daal may ñu si ndam bu sedd wax dëgg yàlla hmm. am mbër bu loolu weesoo ñu wax eh, ci beneen combat boobu eh, muy diggante Boy ak ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers numéro eh, mais avant may tàbbi ci combat boobu rek dafa am lu mu la bëggoon laaj parce que doy faral nañ di dégg ku ci mel ni mooy Boy buy lim ci mbër nga xamante ni daan na leen au niveau di Géejawaay mu la ciy boole ni bëree ngeen mbàppat am na ndam sa kaw est-ce que loolu am na wala amul. waaw dëgg la bëri nañ man ak moom 72 heures mbéy may rasu mu dox ma caxewal ma tourné def kat appi loolu moom dëgg la daan na moom loolu moom dul sax lu ñuy werante xam nga mais làmbañ si kanam daal waaw xaj na yooyu da koy neex mu koy tudd te wax na dëgg ku am victoire yi daf lay neex waa xam nga loolu mooy dëgg daal benn instant ñuy góorgóorlu làmbañ suñu kanam yàlla baax na déggoon nañ la itam ay jamono yu weesu donc bi nga daani nga xam te ne mooy Khadim Sarr eh, nga sànni xeer boo ñaan yi mu ngi topp Balla Gaye di ko dëkk na ñëw ngeen bëree lan moo waraloon nga yëkkati kàddu yooyu waaw dañu war a bëri rek xam nga lamb ji moom moo tuddee noonu xam nga moom dafa jàpp ne dafa war a bëri ak Balla Gaye waaw ñu xam dañoo war a bëri ak moom daal dëgg yàlla moom osé na taxaw ne nan ko jox Balla Gaye pour mu bëri ak moom lamb la man it osé naa taxaw laaj ko pour ñu bëri lamb la quoi wax dëgg yàlla mais tamit lu jot rek suñu borom dina ko def waaw nah, man non la gëm lu jot rek yalla nako def hmm. waaw mbër la dëggeer boo ñaa taxaw bo ba legi comme ni nga ko waxee sànq boo ñaa mi nek ci seven série de victoire euh bo ne amna ko ci kaw mbeur yi nga xamante ñi ngi nek ko côté géejuwaay way tay mo wara dajeek ak la dëggeer numéro 2 mu don combat boo ten ciow coow li bëri na ci trop yo avant tout nan nga gisee lamb jooju wa lamb jooju lamb ju neex lay doon wax dëgg yalla xam nga mais dañuy ñaan suñu borom rek mom mi dara tëwul mom nga xamne moy borom lepp moo mën lépp tamit ñu ngi koy ñaan mu may ñu ndam ci combat boobu noonu may ñu si ndam lu sedd guy di ñaan la dëgër yàlla suñu borom bi may ko ndam boo xamante nii xam nga du ko sax foogee day ñëw yomb mu daan ñibbi géejawaay neex loolu la ñuy ñaan incha allah. Hmm. bu ñu dégloo yenn observateur yi ak ñu bari di faral di wax ne la dëgër de bi dafa doon combat bam te dafa war a jël ay responsabilité ñëw ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang tegal ko lu metti jël responsabilité ba am ci kaw ndam yow loolu nan nga ko gisee. la mais su ma déggee say kàddu dafa mel ni boo ñaaree daw. mais dañ doon faral di gis ku ci mel ni Lac de Guiers bu njëkk ñu tudde ko le penseur xam nga lu ko waraloon mooy xeex bi nga xamante da ko doon def ne doon ko xam tey dafa am loxo bu weex mais au fur et ñu dem ba gis suñu Lac de Guiers mu xeex mën nañ sax loxoom du jóg est-ce que combat bi laajul tey mu ñëw daal di déclare le penseur boobu ñu ko doon woowee Tyson ak Balla Gaye waaw bokk internet yi mu doonoon waxtaan am solo bi nga ni ko ak le grand champion Marley Euh, comme niñ ko faral di gisee rek ci yar gi ci tey gi mu doon waxtaan bu am solo bu waxtaan ak moom mu revenir donc ci point yu bëri ci carrière ak euh, combat ak Diène Kaïré coow yu bëri woon na ak Balla Gaye numéro 2 wax ci digganteem ak Boy Baol moo waral mu jël combat boobu ak daan ñuy wax xalaatam ak analyse ci nga xam te mooy diggante Lac de ak Boy euh, mu doonoon aussi une discussion d'enseignement comme ni ma faral di ko waxee directeur direct Bekay Koundoul. Je vous rendez-vous prochainement. Merci beaucoup.